la cour suprême indi ci Ousmane Sonko ñeel élection présidentielle bi ñu jëm waaye benen di ko rejet bu CEDEAO bi nga xamné momit dig dajé mi ngi ko joxe suba fukki fan ak juroom ñaar ci wi nga xamné ci lañu ngir mëna wu également sur cette question manam li nga xamné mom lay avocat Ousmane Sonko jébbaloon cour de justice bu CEDEAO jour bu fatidique mëna ñu ko dipé non pour Ousmane Sonko lolu kon dañuy waxtané ak ño xamné sen xam-xam match na ci bokku na ci professeur Ngouda Mboup mu nek enseignant chercheur en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar de droit public public à, à l'UCAD euh, Ngouda nuyu nañ la dara sur plateau. di am mbégte yi. Mhm. d'abord les Sénégalais de la diaspora di leen jaajëfal di nuyu Sénégalais yi nekk fii nii. di am contenté aussi di bokk ak plateau bi sama naataango yi fi nek di ñaan aussi xam-xam bu sel génn fi que sénégalais yi jëriñu fi. Mhm. ñom fi également Elage Amad Cham Thiam mu nek consultant euh, en droit et spécialiste du contentieux des affaires Elage Amad Amath nuyu nañu sur le plateau. euh, merci papa mhm. mm, di euh, nuyu sénégalais yi ñuy teewlu ak sénégalaises yi nekk ci réew mi ak bitim réew yëpp ak kilifa yi. diine yu aada yi di nuyu aussi ñi ma bokkal plateau bi en commençant le professeur Ngouda sama sama sama sama sama grand di aussi aussi euh, Diatta monsieur Diatta voilà di ñaan yàlla may ñu débat boo xam ne dina am dégg ak topp. Mhm. voilà jaajëfal nañ ne bu baax a baax ñoom fi également Jules Diatta membre de la cellule de communication bu gëm sax bopp Jules nuyu nañ la daal sur le plateau. maa ngi lay ziar bu baax Abdou di la remercier bu baax ci invitation bi. du nuyu aussi sama co yi professeur Ngouda ñu ngi lay gërëm bu baax gis nañu jaloor yi nga def ci dëkk bi ak euh, mon ami Thiam euh, di nuyu aussi sama yaay mënuma ko bañ a nuyu parce que vraiment taxaw nañu bu baax donc mënuma toog rek moo yore sama kàddu moo yor sama ndigal donc yaay booy maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di dolli tamit fay sama waa dëkk muy waa Jembereng fa laa jógee semaine passée di leen jaajëfal bu baax ci parrainage bi vraiment gis naa jàlloore gi ñu ca def ak loolu euh, nga may ma tuuti atadu ah, semaine passée ñu ngi doon euh, maanaam c'était le quarantième jour de suñu euh, soxna su baax soo su su muumi muy soxna président Bougane quarantième jour bi lañ doon fête dem passé di ko ñaanal yàlla na suuf sedd ci kawam di ñaanal tam président Bougane muñ ak vraiment gëm-gëm ak mu xam ne rek lii ndogal yàlla la na continuer mission bi yàlla na ko yàlla jàppale ci mission bi mu song bi euh, balaa may tëj sama nuyoo nag maa ngi jaajëfal sama gars yi sama responsable parenage def nañ jaloore ñu ngi ci terrain bi depuis parenage bi bu mu commencé quatre cent trente six mille huit cent la ñu récolté di daw ci terrain bi maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu ngi ak seen 20 pick-up L200 ak seen 250 télé photocopieur xam naa peut-être dinañ ci mën dina ñëw maa ngi leen di jaajëfal sama gars bu baax a baax. alors jaajëfal nañ la bu baax a baax Jules Diatta jéem nañu def fi pexe daanaka ci suba ba tey ngir am euh, membre bu Benno sur le plateau. Mhm. mu mel ne toute la République entre Kédougou Kaffrine et Fatick. <laughs> Euh, ndax visite bi nga xam le président de la République Macky Sall mi ngi koy amal foofu ba tax na am nañu jafe-jafe ngir am quelqu'un boo xam ne dafay bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar pour que le débat comme d'habitude tous les jeudis euh, puisse être équilibré mais dañuy door waxtaan bi wax naa ko léegi cour cour suprême suba di le 17 ci la war wax li nga xamné mom mo tuké eh, ci lañu ko jébbaloon ndax Ousmane Sonko dina bokk ci élection présidentielle 2024 yamu ci kenen du cour de justice bu CEDEAO mom également waxna ci waxna ci prononcé wu euh, aujourd'hui est-ce que euh, bu féké né ñu ngi xaar lolu nga xamanté né moy ñaari verdict yoyu euh, ci yow la koy dooree professeur Ngouda est-ce que mën nañu wax né dernière chance bu Ousmane Sonko lay don non pas de dernière chance pour Ousmane Sonko fii lañ toogoon man ak je pense que fii la toogoon la veille bi le juge Sabassi Faye a décider à Ziguinchor lan la mhm. waxoon ma la partout où le droit cela dit Ousmane Sonko aura gain de cause et il triomphera mhm. en réalité partout bu ñu dem fu Ousmane Sonko am ndam fait dama koy feddali ne c'est pas la dernière chance de Ousmane Sonko pourquoi parce que Ousmane Sonko a le droit et la vérité avec lui la portée de mes propos euh, et de ma parole aujourd'hui me permettent d'être dans la constance du ma suñu avons dit, si le droit est dit hmm. Ousmane Sonko décision bi nga xamante ça va Faye jëloon ko favorable ko koy parce que droit amna fo xamni su fa tollé c'est logique comme des mathématiques yàgg naa ko wax cour suprême c'est juge du droit Le juge du fait bu ñu da fay xol ndax li ñu àtte méngoo ak yoon li code électoral wax et je pense que kérok bi Sabasy fay jëlé décision bi li ma ci wax moy ñun même buñu daan offisqué wu di wax ne juge yi nous motiver sen décision yi du ko wax ay de grands auteurs André Tunk, Adolphe Toufey etc. mais buñu lire décision bi xamnañ ni c'est suffisamment motivé que juge bi raisonnement am jox le dispositif wax nako té wané na ni Ousmane Sonko radiation biñu ko def mënul wona nek parce que tout simplement li code bi wax respecté wuñu ko donc àqam ak yelleef dañ ko sañ dañ ko dañ ko salfañi donc dañ fa waroon a ci liste yi te loolu moom laay waxaat tey parce que si le droit est dit et bien dit gisuma tay ji ni luy mëna a xañ Ousmane Sonko ay àqam ak yelleefam donc pour man en réalité d'ailleurs mënuma wax dernier sens parce que c'est celui qui est battu dans le cadre d'un procès qui essaie de se rattraper donc du dernier chance Ousmane Sonko benen bi ci top moy du dernier chance parce que man dama japp né suba le hasard du calendrier judiciaire donc fera que Cour suprême à Cour de justice de la CEDEAO après parce que Cour suprême est malade. Mhm. les deux hein, Cour suprême et Cour de justice de la CEDEAO. Cour de justice de la CEDEAO. est-ce que nous une chance pour participer à la présidentielle c'est une cour qui a de l'autorité. l'autorité d'une juridiction. Mhm. conseil constitutionnel du Sénégal pôle autorité Cour de justice de la CEDEAO. oui. Cour suprême du Sénégal pour autorité cour de justice de la CDAO. xam nga nous, Suñu fa dem une partie de notre souveraineté parce que les matières qui sont concernées notamment la justice n'est-ce pas c'est une tâche de souveraineté Nous dem ci traité bi nga xamni en 93 article 15.4. les décisions de la cour s'imposent erga omnes à tous les états membres Regardez dem article 26 Nous nga protocole bi la cour bi les décisions de la cour sont exécutoires de plein effet fi dañu sommes en droit communautaire sommes en droit international général c'est le principe de l'effet direct fàttaliku nous ñu bari dañuy wax sax affaire Khalifa Sall mais ak même bu Karim Wade bi état du Sénégal né duma ñom Karim Wade duma len euh, du ngeen génn ñom ñu dem la cour de justice de la CEDEAO ni amul base juridique état du Sénégal dafa ni wa d'accord mais ils ngi régulariser mu dem mu ni non dañ ma wax régulariser qu'importe dans l'affaire Khalifa Sall mhm. le procureur même moo mujjee wax pardonnez-moi l'avocat général devant la cour d'appel mu né nañu nañu annuler le PV le PV d'enquête dañ ko annuler sur la base de la décision de la cour de justice de la CDA. la parce que c'est une question de conventionnalité et dans le cadre du contrôle de conventionnalité c'est le cour suprême moo koy def Le conseil constitutionnel dit que le contrôle de conventionnalité c'est la du def cour suprême moo donc loolu suba sax meuna am influence ci le cour suprême meuna wara décider parce que su fekkee ne cour de justice de la CEDEAO dafa jox Ousmane Sonko deug té man dama japp ni da koy dina ko jox deug ah oui oui parce que man dama japp ni partout où le droit sera dit Ousmane mhm. Sonko aura raison et il trompera. té su boobaa entre la décision de la cour de justice de la CEDEAO et la décision de la cour suprême su amé contrariété wala contradiction c'est la décision de la cour de justice de la CEDEAO moo koy emporter ah oui waaw loolu lañu ñuy en droit communautaire c'est très simple bu de contradiction parce que droit communautaire moo sut droit national waxuma ko article 98 du dix huit ma se pliera parce que yow nga ko Karim le parrainage de maître Abdoulaye Tine am na bu ci nekk rek Sénégal am na wul ci décision xam nga lu tax dafa am lu mois de mai passé 2023 le Sénégal a rejoint les états ont fait des déclarations déclaration auprès de la cour Mais ñun avons fait lu ñu manqué Nous ñun désigné un organe bi exécuter les décisions de la cour le 13 juin 2023 même l'APS l'a repris Mais c'est des faits parce que un juriste non la même le service de communication de la cour de justice de nous féliciter Sénégal mais à mon désigné un organe bi nga exécuter les décisions Vous faites que jël avons ko xam nga organe c'est le ministère de la Chine